asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu maa ngi leen ziar di ziar toute la presse après ñoom danañu wax nu ñu gisee saison bi tey mooy avant dernier jour bi nga xam ne dañuy tëj saison bi muy le 14 août bés la date en or la jamaïcain moo fi woote ah jam production euh, Fils de Balla ak Goro soc combat boo xam ne combat clarification la combat boo xam ne ni tamit règlement de compte lay nduróol c'est Guédiawaye tamit et Parcelles Assainies enjeu la combat boobu te ñaari mbëri tamit buntu la si ñoom mais beneen combat dana fi am muy Jokkel ak ki moom mooy Kéwel mag ji day dem jëli rakk ji Jokkel bi nga xam ne am na ñaari défaite ci saison bi dafa gisagul yoon bi pour demaat relancer waat sa carrière mais tey moo kéwél naka lay demee bu jógee si kéwél fan lay mujjee muy ndam wala victoire mais coach Moussa mi ngi fi dina am loo xam dina ko jàngat ci diggante Gora Sock fii sa Balla dina jàng tamit Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux seen ëllëg maa ngi ànd ak kan góor gi astafurlaa <laughs> ndaw laa àndala ah. ndaw le grand ndaw le grand caméraman mais eh, dañuy dem xooli tuusi jokeel buñ ci paree ñëw ci coach Moussa ñu am ay jàngat yoo xam dana ko jàngat ci làmb ji mais la presse tamit di leen wax saison bi ak liggéey bi ni mu demee tamit loolu yëpp neen si waxtaan incha allahu rabbi Hallelujah. salaam. na nga def. sant bu baax. noir fumier yi pour lan la. non non noir bi nekkul dara sama xel moo dal la rek moo tax. affaire wàññiwaat ak affaire booy PA yi ngay jaay. waaw yow ban booy PA. ay booy géejewaay yi nga bëgg a wàññi. booy booy wàññi leen démb tey doo ko ñëw. loolu ah. ñu ko defante de. combat bi nu muy demee. dóor mu daan wala. ñun dañuy xeex dañuy bëre lépp la ñu lépp. Ah, dama la laaj ba xam dóor mu daanu la wala. ne ko dóor sax mu wari daw génn stade bi ma ne ko dóor mu daw génn stade bi. jël tali yoon bi nii. daw génn stade bi di porte yi daw dolli dem ñibbi kay waaw man daal. man daal booy bi tapel la Fils de Balla tapel la yor nag. Eh, booy géej waaye woon. tapel la tapel la ñëpp xam nañ loolu. lan béré rek mais tapel la. mais alors mbaa doole ko def règlement de compte. dégg nga li ma la wax ñoom man ñoo doole te dañ ko war a yar tey. lam moo tax loolu lam moo tax la boobu yaru te góor kese moo ko moo mën a yar. lam moo loolu. waaw ah, kon bés kanam. ba dóor mu daan wala daw. wala génn daw génn saal bi daw génn tëb miir. papa sama bopp rek laa ko yebee nekk na xale boo xamante ne vraiment préparé na combat bi au sérieux ak ni mu war a àndal rawatina école de Balla Gaye donc ñun bu ñu amee fit ñëw rek parce que xam nañ ne liggéey na donc vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko ndam soobee yàlla. naka nga gisee diggante Bou Siteu ak Gouye Gui seen ñoom ñaar naka nga ko gis tey en tant que porteur de voix en tant que koo tey géejewaay ñëpp la jox bopp lan ngay wax waa waaw sant dañuy sant yàlla rek. xale ak mag la kilifa la ak waajur euh, xale dafa juum donc li ñu war mooy ñu jubbanti ko rek loolu nekk na lu ñu neex parce que lépp muusu géejawaay moo ñu gën a muus ku ne si mooy loolu. jóge nga ci am ci ndam ñu ne Balla Gaye fan la jëm ñu ne mi ngi jëm ci digganteem ak Boy Niang mu nekk combat boo xamante ne ak lu lamb ñi ci ëpp dañ ne combat mag la ak xale. combat boobu que mën ah, waaw yàlla suturaal nañu suñu combat yëpp dañoo bëre daan Jacob deux combats deux victoires. Pokola doon ngi ruubee làmb ji waaw loolu la yàlla dogal parce que dañoo déggal suñu père mu ñuy teg lu métti ñu koy nangu. moo tax lii mooy fay wi. liggéey la dara du liggéey Modou Lo li tax mu daw xam na ko. comprendre nga. booy yi suñuy raq lañ comprendre nga. te ñoom ñëpp ñoo yam si ñun. barki alxuraan jàmm rek lañ leen di ñaanal. su ko suñu borom defalee ndam. mbégte lañ ci am ak santaat suñu borom baax. barke suñ Touba yàlla moo ko suturaal may ko ndam. mais dafa mel ni tey ak ak ba léegi dër bi jeexagul. noonoo non non non non non non non du cadre ay gagné ak ay Parcelles ak Pikine. Ah, ah. lamb moo toll foo xam ne. Ah, da ngay bëreel sa bopp. dëgg la Zil tey la doon bëreel ndax daa am ci lu mu jugee. <laughs> la. Pikine parcelle jamono ji lamb moo fu féete mais taxu koo nekk dër bi xam nga lu am diw moo war a dajeeg diw rek ñun ñu ànd ak ki ñu war a àndal ki ñu dëkkal ñaanal ko suñu borom defal ko ndam mais man gëw ay dër gis nga moowu dër bi moo indi problème yi ci lamb ji yëpp pour man warul nekk dër bi bi ci ñaari mbër la war nekk mais buñ communiqué dër bi rek supporters yi dañ koy indaale ci stade moo waral problème yi fi jot am yu wees yëpp yàlla na fi yem nga ban message nga lancé si loolu message bi koo xam ne tey sa morom jàppal ni sa morom ngay bëreel da nga concentré wu si ñaan suñu borom defal la ci ndam ñun ñëpp benn la dañuy mbayante xaalis rek duñu ay ennemi sox suñu mu nekk maa ngi si kawam di sant yàlla di wax avance bi dugg na avance bi waaw man ak Marley taxaw na démb ak Marley waaw sant nañ ci yàlla bu baax ñu ngi ñaan ñëpp xam nga ñu ñaanal soq yàlla suñu borom defal ko ndam ndax ay xale lañ te xam nga dañoo nekk ci yoon bi di lu rek li ñuy def nii ak tur bi fi mu yegg suñu borom la du suñu njàmbaar de comprendre nga kon ñun ñu ngi sant yàlla rek ñu ngi suñu ruq daal nekk ay xale ba tey di liggéey Marley champion la moo tax ñu war a bëre moom. waaw dëgg la. Mbisaan Dione noo def. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. waaw na ma trop. waa non kii moom suñu grand la amuñu fayam chaque instant mu ngi yëkkati alalam di jël temps am yëpp di ko perdre ñun bëgg ñu réussir kese. waaw ah, doo ko fàtte. non man moom. waaw yàlla baax na ay 100 millions rek fàtte ko. non yàlla baax na mu nekk màgget quoi yàlla yàlla bàyyi suñu ngor. man mbaa doo non yow xamaguma la. ah xamaguma ah yow. ah yow yaa wax lii. bàyyi naa la. waaw ah, mais mais Mbissane dégg naa nag yaa ngi def carrière bu am solo côté Gambeeg fu ne yaa ngi fay mbapat. da mel ni kii da nekk si mbapat ba pare door a ñëw lutte avec Franc. waaw noonu la demee dañoo nekk si mbapat sak instant ñu ngi compétir yàlla xam na ko. di bëgg waat bu baax a baax suma coach Vé Diallo ak suma grand as boo jëloor suma mbokku mbëri yi ñoom Malick Niang Thiatou Ama Zarko Ibrahima Ndom kii suma doomu ndey la suma lépp la yàlla xam na ko ñii ñëpp bilaay walaay taalaay dañuy yëkkat seen temps seen xaalis ak yëpp di ko def si man yàlla xam na ko di bëgg waat grand Mor Jaxate bu baax da nga samp loos bi si biir géew waaw noonu la demee bëri soxor nga bëri lañ ñu jàngal soxor de gars yi dañ lay daw de <laughs> non gars yi dañ ñoo jàngal bëri mu door ko coupé ma jël ko mu déclenché ma mbaar ko nga mbaar ko waaw bëri pire nga def waaw noonu la dañuy jàngal bëre bu baax. mbapati waat wala da ngay. non dañuy mbapat ñun chaque instant ñu ngi ci mbapat dañuy jàng bëre. waaw ñun moo ko lëgul dañuy jàng bëre ba léegi nii waaw. bi mooy ñaata combat arrête. bi mooy sama huitième combat. huitième combat huitième combat. six victoire six victoire. waaw ñaar yi dañu la naa dañ maa dëpp waaw. waaw gis nga noonu la laamu noonu la. waaw di encouragé suma adversaire parce que laamu nii la ama ñàkk la na defarawaat rek ñëwaat ci biir laamu ji incha allah rabbi baax na maa lay bëgg diggante Kewel ak euh, Jokkel ndeysaan troisième chance pour Jokkel troisième chance pour Jokkel Jokkel moo ñu wan kanam Kewel moo ñu wan ginnaaw booy Bawol ak booy Kër Massar defe naa foofu la de Jokkel l'expérience face à la jeunesse l'expérience face à la jeunesse Kewel dafa jóge ci défaite. ñoom ñaar ñëpp kenn amul droit def erreur. ndeysaan Kewel ba ñu surtout Kewel surtout Kewel. ba pare mu ne dañ ko yeew. ndeysaan mu ne dañ koo liggéey dañ koo jàpp moo tax combat bi demee noonu mais tey est ce que war na mën a xalaatee foofu. ndeysaan moo war a diriger moo war a bëri tey. moo war a a bëri. face à la jeunesse. ñoom ñaar ñu ngi Keweul moo wan ginnaaw Keweul pied gauche Diockel pied droit tànk day joor ñi ngi leewtoo ñoom ñaar tey kaana nekku fi ah waaye tey kaana dafa ma daw dem na jëli ko ñoom ñaar daje nañ ñoom ñaar daje nañu Diockel Keweul dem nañ ci saaku yi la force doole ndaw est-ce que dina def effet wala boog expérience arbitre puusal. arbitre toogal. arbitre yow. arbitre. oh. wool ma ko téléphone. waaw yow kii wool ma ko téléphone. envoyé ko message. dafa na. dégg nañu wax naa mu toog. Baye Balla waxoon naa la ñoo dégg. mon ami mon frère. waaw. ndeysaan Pape Maguette ñoo demoon ba ak yow guerre. waaw bi laay ndeysaan. 14 18 fi Modou Mbaye <laughs> Modou Mbaye dem 44. ndeysaan. <laughs> bilaay walaay. da ngay leewtoo ñoom ñaar jàppante nañu de. épreuve de force. ak Jokkel. Jokkel da koo bëgg a nax. Jokkel da koo bëgg a épreuve de force tegante bagg tegante bopp ah waay tooñ na ko Jokal yow tey moom boo daanoo nanga nga bàyyi rek boo daanoo troisième combat ci benn saison Keweul a ngi dóor attention luy xew ci saaku yi Jokal Keweul Jokal Keweul roof na loxo yi jàpp na dañ na Jokal din na loxo bi ay waay ay waay ay waay ay waay Jokkel waay ay waay Jokkel waay ay borom ndel bi waay Kewel a ngi door ñaar uppercut door ci biir réel réel réel dégguma rajax Jokkel ak Kewel attention Kewel jàppaat na arbitre toogal Kewel na loxo ndeyjoor ci digg géew bi mi ngi yaa war a de Kewel yaa war a de yaa war a bëre bëre bi yaay xale Jokal dafa téye rek jàpp Jokal dafa téye rek jàpp ma ngay arrière ca saaku ya e waay ana Keba Kante waay a ah, ana Keba a ah, ah, eh waay daan ko daan ko oh. troisième défaite pour Jokal la ilaha illallah troisième défaite pour Jokal et Kewel relance na carrière la mu bëggoon am na ko xale bi relancé na carrière am. ngay daanu ma ngay daanu ay rab. daa daanu. waaw la. waaw waaw ndeysaan. la. waaw waaw ndeysaan lii ci. waaw. waaw mbër yàgg doon yàgg def nii muy def. ndeysaan. ndeysaan oh Jokal. ay waay Jokal daanooti na waay ay waay Jokal daanooti na combat bi cee def lu cee def lu ne. ndeysaan ay waay ma ngay waay open press bu rek ma ko defee. bilaay bilaay bilaay lamb moo la désolation. kii moom ma ngay daanu ba tey. kii moom ma ngay daanu rab ba tey. dama la waxoon. wala gàllaaji la oh sukk Gracias. la soirée Jam Production Jam Production 14 août 2022 Goro Sock ak Fils de Balla arbitre sifflé na 19 heures 19 minutes la arbitre sifflé Goro Sock door na Goro Sock ko ci xeex mbaa door mu daanu du fi am mbaa door mu daanu du fi am Fils de Balla mi ngi avancé Fils de Balla xoolal li ngay def Goro Sock avancé na door door door xeex ñoom ñaar dañuy xeex par force règlement de compte la c'est le derby parcelle géejewaay attention fii sa Balla Balla Gaye moo ko andi attention xeex door mu wàcc attention o oh, door mu wàcc xeex am njaay am jëlal am góor am fiis am góor am fiis am góor am ñoom ñaar ñu ngi xeex ñoom ñaar ñu ngi leewtoo ñamante nañ tuuti Gora Sock fii sa Balla attention ñoom ñaar ñu ngi xeex attention fils de Balla soobu na Gora Sock jàpp na ko dóor na attention plaquage attention plaquage ñoom ñaar ñu ngi léewtoo jàppante nañu léegi ñoom ñaar dañuy xeex xeex nañu bëre nañu xeex ñu bëre nañu ñoom ñaar ñoom ñaar xeex nañu bëre nañu jàppante nañu ñoom ñaar ña ngay mbapat eh eh dóor mu daanu wuy sa manday attention fii sa Balla jël na ko daan na ko fii sa Balla jaan na góor a sok laa ilaha illallah caxabal na ko daan na ko xeexloo na ko nax na ko daan na ko laa ilaha illallah muhammadu rasulullah bébé kel caxabal daan ko jël bu rëy daan ko jël bu leer daan ko jël bu amul benn werante laa ilaaha illallah muhammadu rasulullahi Balla Gaye dugg na ci biir géew bi oh c'est la désolation Gora Sock dafa désolé ndeysaan quelle surprise quelle déception daan na jël bu leer daan na jël bu amul benn werante Fils de Balla daan na Gora Sock